C'est une école franco-arabe. ñu ne dans les dix-neuf communes d'arrondissement de Dakar ñaar rekk fi ne benn bi Cambérène la bii moo ko ñaaran donte sax état bi amoon na mbëbét bëgg ko pour def ko amul fu mu ko defee ñun dëkk suñu xarañ ak suñu vigilance may nañu ñu xalaat loolu parce que xam-xam ñaar la mën nga am imam Niass wax na ko sànq xam-xam jëm ci yàlla a xam-xam bu doxal sa wàllu àddina donc ñu am boobu xalaat ne tey nag fii dañ koy def franco araab te loolu mooy woon mbëbëti ña nga xam ne ñoo ko doon defar à la limite ñu di leen delloo njukkal di leen delloo ngërëm dama ne dans la vie ci àddina dafa am loo xam ne rek nit ki fu mu toll rek loolu la ma ne defar ko askanam a ah, ñu jéem koy rek yóbbu faneen ñoom seen doole la ñu amoon ak seen bébét ak seen bëgg-bëgg yal na leen yàlla fay loolu yiiw waaye tey dañu toll ci ñàng xam-xam ñun yoruñu xam-xam mi defar mu baax ñu joxe lañu am tey waaye njàngale moo des nañ ko jox ña nga xam ne ñoom la yàlla may loolu ñoom la yàlla baral loolu ah directeur bi ñëw fii ñu koy wax dalal jàmm a ah, yàlla na fi toog ci jàmm nekk ci jàmm nag di remercier ñëpp nag di encourager képp ka nga xam ne rek ah jàpp nga ci euh, école bi ndax mu sotti di remercier au passage aussi monsieur le président de la république euh, président son excellence président Macky Sall parce que moo tax ñu mën a gis le ministre bay mën a wax moom ministre bi aussi def la ko war waaw ñu benn yoon tànqam ñu ah mu ubbil ñu ay ay bureau ñu wax ko suñuy mbébét wax ko suñu soxla pour Ngor mu taxaw si defoon ñu ko école bi du lu tuuti ngor ci boppam moo dul lu tuuti nit ñi xam ko ñàkk ko xam waaw ñaam na ñoo xam ne nag fii dafa di addina bi mënoo def lu ñëpp ànd yonente bi sax amul woon unanimité man mii day monsieur le maire munu ma am ina unanimité te su ma su ma euh, xel may na ma ma mën a comprendre loolu mën leen na dëkk aussi waaw du ma ci duñ ci wax wax ju ñaaw duñ ci ñaawoo kenn mais li nga xam ne foog nañu ne ñu en tant que élu parce que dañu ñu fal en tant que élu ñu fal ñu li nga xam ne ñun buñ ko defee muy njëriñu askan wi li xam ne buñ ko voté conseil municipal bi muy li nga xam ne askan wi ñoo ko wax parce que ñoo ñu fal ñu leen ko ci jàmm ak salaam. day nekk ci loxoy IEF de Dakar mais xam nga ne buñ ne IEF de Dakar aussi euh, mën nañoo wax ne euh, école même bu ko IEF yoree comité de gestion ba ca gox ba lay jógee ko moo koy yor. comité de soci parce que ñoom ñooy dafa programme pédagogique bi ñoo ko yor ñi nga xam ne nag ñooy saytu école bi lu fi baax ak lu fi baaxul ci ngor gi la ñuy jógee comme école yëpp ah ñu wax ne rek ah donc en dehors de ça euh, nombre de classes yi dafa ëpp sax dafa jigi doy parce que fii huit classes moo fi nekk bu ñu ne huit classes classe bu nekk di def cinquante multiplier ah ça fait quatre cent élèves waroon na fi mën a xëy tey mais doxaloo ñu noonu dañu bëgg en en accord avec l'IEF ñu defar ko na nga xam ne rek moo gën a baax pour ñun te muy gën a baax pour askan wi ñu ubbi rek ñaari classe yu cinquante ya nga xam ne euh, CI lay commencé ñoom bu ñu yéegee CP ñu jàmpale waa ñeneen CI peut-être sax ñu def si la petite la petite enfance déwén on va discuter avec l'IEF xam nan la ñuy defee la petite enfance lépp daal parce que fi école privée war fi mën a nekk voilà waaw mesure barrière gis nga baag yaa nga ne le les laaf mais ñoo ngi noonu si biti xale yi fi ñëwoon ñëpp xale bu ci nekk andi euh, yaa ngi sa masque boole ñun la ñuy joxe saabu yeeg eau de javel yeeg yëpp maire bi dafa fee sax produit pour école yi ah, jox nañu leen ku ci nekk saak kaye ñëpp école yi Ngor yëpp waaw produit yi moo nga mairie ba bu nga demoon léegi mairie ba daañu leen ko photo wan leen ko la chambre elle est pleine de produits ya nga xam ne c'est des produits phytosanitaires uniquement pour les pour pour école yi ak hôpital bi écoles yi def nañ ci vingt millions parce que ren dañuy jëndal école bu nekk muy école Alioune Samb école Baytir Samb école bi école yëpp nombre d'élèves yu fi nekk ku ci nekk ñu jëndal la saak jëndal la fourniture cahier gomme euh, régal yëpp def ci biir saak yi jox xale yi fii aussi ñu dolli ci ay bourses pour fii parce que lu bees la dañuy beesantal waaw déwén dëkk su fekkee ne y changement yu war a mën a nit ñi daañ ko xam à temps pour mën a jël seeni disposition mais ren dama ne man en tant que maire may financer lépp bu ci kenn def dërëmam il est de il est de coutume il est normal euh, à l'ouverture des classes élèves bu nekk participer de 3000 francs ça c'est normal c'est normal école yëpp la mais ren dama ne bii bu kenn participer 3000 man 3000 yi man dinaa ko joxe naa ko joxal élèves yi déwén nag directeur bi il verra comment faire mais lu fi am ba am daal du weesu mille francs inscription ak euh, kii ak blouse 3000 francs inscription ak blouse fii kenn du fi fay dañuy wax ne ne élèves yi fay 7000 nee naa fii kenn du fi fay lépp la nga xam ne na ngor moo ko moom mu di classe mu di école mu nekk ci biir dëkk bi wala bañ nekk ci biir dëkk bi lépp ñu ko jël delloo ko waa Ngor parce que waa Ngor moo ko moom benn clic mënu ko jël rek di ko feyeku duñ ko d'accord duñ ko def te lépp lu fi nekk ci école nit ñi di ko feyeku dinaa ko dindi ba mu set bu soobee yàlla yonent bi